dal leen ak jàmm ci siiwal point net ñetti w point siiwal site internet bi ngeen tam moy am bekté ci di len jox xibaar yu wér wo top ki ñu euh, dend ki nga dendal ni di mama umuba nek au conseil des collectivités territoriales nek aussi homme politique ci APR euh, indi len nak li nga xamantene mom moy li ñuy gis ni moy euh, borno fontaine bi nga xamantene ne ngeen ci root di ci tànk ndox di ci fajaale seen soxla nan nga gisee rek euh, maanaam euh, jàppale boobu mu leen jàppale kii di Mama Oumou Ba. Mama Oumou Ba yàlla rek lañ koy bàyyee ndax lu ñu fi defal lu foor a foor a foor la ndax fi mu ne mbébét bu mu bu mu bu mu mën a am rek ci àdduna yàlla na ko yàlla defal mhm. ndax fi mu ne koñ bi yëpp waxuma la ñun ñii ñu nga xam ne amuñu logement amuñu lotissement koñ bi nga am ne moo xam am liñ ma ak rubinet sax dañ fiy ñëw di root mhm. pour di ko dimbali ko waxuma la ñun nag suñ jur yëpp ci la ñu koy wëgge dégg nga ñun ci la ñuy root lu ñu dimbali ko ndax ñun amuñu ndox ndox mhm. mhm. ñu ngi nii yéen moom wax xanaa gis bokku ci ñëw ngeen ba gis ñu ngi koy ñaanal yàlla moo xam lu mu bëgg ci xolam ak njabootam yal na ko yàlla defal darajee Muhammad waaw ñaanal rek lañ koy ñaanal dal leen ak jàmm ci siiwal point net www point siiwal point siiwal point net seen site internet bi ngeen taamu mooy am mbégte ci di leen jox xibaar yu wér te